waaw li ngay daax kéwél mu dem si àll ba nga daax nga ñëw sa kër wax dëgg neex yàlla te ñun li ñu gëm ah, man mi demoon naa ba jëloon billet waroon a dem si beneen compagnie mais bi ñu gisee ni Air Sénégal day dem tey dañu annulé ñëw fekk si leen parce que ne ànd ak ñoom vraiment jàppale leen ci liggéey bi ñu koy rafetlu vraiment ñu koy rafetlu torop liñ leen di ñaan rek mooy ñu xam ne Arabie Saoudite tamit dëkk bu particulier la donc euh, ñu gën ñu jàppale daal ci waxtu yi ñu koy respecté ba nga xam ne ñun ñi nga xam ne dañu yor agence yi def euh, aj Makka ak umra suñu liggéey dina gën a yomb mais daal vraiment kontaan nañu kontaan nañu que sac la sac la ngay dem si dëkku jàmbur mm-hmm. mais nga wàcc ci sa euh, avion bu jóge sa dëkk au Sénégal waaye yéen dëkk yëpp seen i air la ñuy wàccee dëgg ñëpp di ñëw ak seen ak yow ñun tey jot na ñun tamit euh, air Sénégal dem fu nekk si àddina bi rawatina nag ñun fi ñu miin tamit bu boobaa coono bi dina xaw a wàññeeku si aussi parce que def 7 moo gën def 19 heures waaw ñu ngi kontaan ci dañuy ànd ak yow rek Fakala yoon bi waaw xam nga yéen xam nga yéenee sama télé ñu ngi ziar euh, Dame sama mm-hmm. frère di ziar waa leeral yëpp mm-hmm. daaw liggéey nañ lu am solo si aj maak bi si yoonu maak vraiment dinañu continuer di ànd ak yéen di liggéeyandoo ak yéen ba li nga xam ni moom moo ñu tax a jot moo di nit ñi di ko dund. Mm-hmm. vraiment ñu attendre ci mais kontaan naa ci yéen. Ah.